ñu ngi lay ziar bu baax a baax franchement di la sant di la gërëm di kontaanee tamit euh, appel bi Fatou laa tudd sant Diédhiou maa ngi ci diwaanu Istanbul à l'heure bu je vous parle euh, ñu nekk ci tiis nekk ci naka waaye dem di mën a benn combat bu difficile bi nga xamante ne soxla nañ ci aide toutes les Sénégalais du coup boole ñu woowee di ñu laaj loolu dañuy kontaan franchement pour répondre leen. merci beaucoup donc Fatou euh, comme ni nga ko waxee mu nekk mbir mu tiis boo xamante ni moo am foofu la ci Turquie ci lu ñu yëgagul muy ab sénégalaise boo xamante ni étudiante la ñu dégg ni dañu ko violé waaye gannaaw bu ñu ko violé ba noppi euh, dañu ko daal di te teg loxo dañu ko actuellement donc mu ngi foofu la ca euh, Istanbul donc ñu daal di teg loxo mën nga revenir un rek ak ñun ci li nga xamante ni moom moo xew. Euh, c'est vrai franchement loolu ngay déglu lu am la mën naa ci indi ay leeral yu bref euh, benn xale bu jigéen elle s'appelle Mame Diarra elle a vingt et un ans Mhm. Euh, elle est étudiante à Karabuk donc ñoom bu ñu jàngee ba pare dañuy faral di ñëw ci ville bi ñuy wax Istanbul parce que Karabuk beneen ville la bu nekkul Istanbul mais lépp ci biir Turquie bi la mhm. dañuy faral di ñëw fii pour juste seen euh, quelques mois de vacances yi ñu liggéey am lu ñu dajale parce que dëkk bi dafa metti ñun ñu fi nekk sax euh, fait say des fois say on a du mal à à à combler nos bonheurs et eh, nos mhm. ñoom dañuy ñëw pour liggéey pour dajale lu ñu am yóbbu ko dooleeg li leen seen di yónnee parce que kër yi ñu leen jox location cher na lekk beeg naan bi waxaale ñu ko les factures et tout ñoom la waxte ay élèves lañ dañuy jàng donc euh, ñëw liggéey ci foraatu day doon li nga xam ne mooy obligation bi ci ñoom du coup xale bu jigéen bi dafa ñëw fii di liggéey fi mu doon liggéeyee fabrique lañ koy woowee fii maanaam ñoom ñooy ñuy defar ay saak ay daal genre truc mooy ñi koy fabriqué. Mhm. Euh, patron bi muy liggéeyal euh, dañuy faral di liggéey ba benn instant ñoom dañuy faral di ko def turki dañ koy woowee euh, masayif masayif mooy extra maanaam beneen heure extra la mais boobu itam dañ koy fay ute nag li ñu lay fay par jour. d'accord du coup c'était la nuit du vendredi. Mhm. liggéey nañ liggéey nañ ba vingt dix neuf xale bi war a wàcc mi ne ko doo masaay boo masaay ma dolli la comme élève la eh ba am na jom et puis aussi gis ay moromam di ko def mi ne pourquoi pas. Mhm. mais jour boobu moom moo fa desoon ak ñaari élément ak patron bi ñuy masaay ba vingt une heures ñu génnee keneen ki moom mu war a wàcc di dajale ay bagages ñu fekk ko fa. élément bi tëj bunt bi euh, xon ñoo ñool ko fa euh, tuutal ko toroxal ko euh, violé ko de force ba pare mënuma sax eggali xëy na li may wax ndax xol bu tàng franchement ak tamit tuutil kiñ ko tuutal traumatisé xale bi une fille de vingt et un ans viole ko ba pare génnee ko jëlal ko taxi ne ko ñibbil te boo waxee ñu ray la parce que def nañ ko say morom te dara dara eggul fenn te eggul fenn du du du mujj fenn donc si je fi mu nekk ki fi mu loose mhm. si si je comprends bien donc moom euh, bi nga xamante ni liggéey na ba wàcc wara a wàcc dañ ko proposé à que mu def extra donc bi mu defee extra bay pare bay waaj a ñibbi. ci lañ ko fekk foofu daal di koy violé. d' accord ci lañ ko fekk foofu ci lañ ko fekk foofu daal di koy violé. allo. xewee ci fabrique bi muy liggéey maanaam patron bi muy liggéey ak benn élément ci ñiy liggéey ñoo ko def lu nu mel je sais. d'accord patron bi muy liggéeyal ak beneen élément donc ñaar ñoom ñoo ko violé ñaari nit nekkul benn nit kese mais ñaari nit ñoo ko violé si je comprends bien. allo. oui yaa may dégg ma donc ñaari nit ñoom ñoo ko violé nekkul benn mais ñaari nit. ñoo egg ci kawam patron bi y compris avec euh, beneen euh, élément buy liggéey ci fabrique bi. d'accord alors donc euh, elle est une innocente de rien du tout xamul dara boo xoolee xale bi di xam ne kii xamul dara xale kese la. d'accord après bi ñu ko violé dañu ko menacé ni ko def nañ ko say morom mujjul fenn donc boo waxee dañ la rey loolu n'est-ce pas dañu ko violé dañu ko dañu ko menacé. rey parce que du mujj fenn loolu lañ ko menacé xale bi tamit daal di wàcc dem këram bi demee këram nekki mu dëkkal yóbbu ma hôpital elle elle habite une Gambienne mi ne ko expliqué ko li xew Gambien bi tamit fu xëy dàllam ñu daw dem hôpital effectivement les prélèvements ont ont montré que ni ñaari nit ñoo egg ci kawam pas benn mais ñaari nit. d'accord donc loolu aussi am ngeen certificat médical buy wane loolu bi koy firndeel. am nañ certificat médical bi koy wane euh, am nañ tamit ay témoins ci hôpital bi mu demoon ki mu àndal mooy ki mu dëkkal tamit elle est témoin donc bi loolu amee ñu dem muy la ñu xëy dem ci samedi bi ci ay 9h plainte c'est vrai def nañ seen enquête ba ñëw jël nañ ñaam ñoo ñu ko violé franchement taal nañ seen oto ba ci fabrique bi jël nañ leen bu leen dem tëji ji mais ñun li ñu metti mooy li nga xamante ni teg nañ ko ci kaw xale bu jigéen bi mooy dañ koo jël tuutil ko toroxal ko ba pare daal di koy tëj yow lañu tooñ ba pare ñu dellu tëj la tëj ko benn journée H24 bi nga xamante ni mi ngi ko nekk allo comment se fait comment se fait-il comment moom ñu tooñ ko violé ko ba pare ba noppi daal di koy teg euh, lan la leen police lan lan lan la leen police wax lan mooy motif lan mooy motif lan mooy motif bi lan moo xew ba ñu teg ko loxo. Eh, motif bi tax ñu teg ko loxo euh, soi-disant ils n'ont rien à trouver lu dul euh, amul permis de travail elle n'a pas droit de travail parce qu'elle n'a pas ce qu'on appelle le le talisman en turc ça veut dire permis de travail. amu ko looloo tax ñu jàpp ko tëj ko en même temps ñi ne élève la elle vient de de Karabakh fa la waroon nekk lan lay def Istanbul mais ay wax yu teguwul fenn Sénégal gi ñu dëkk sax boo jàngee ba tëj da ngay dem liggéey ji mhm. boo amee jom doo fi nekk di taxawaalu di ñaanaatu ay wax la yu amul fenn ay wax kese saw parce que on veut juste vous expliquer que ne loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy teg suñu kaw ñun africains yi dund ci biir euh, pays bi ñu naan Turquie sonn nañ fi du jigéen du moo xew tey lii moo feeñ parce que on en est sexuel yi ñuy daj ci mbedd mi rek ñun rek ko xam fi may waxee yow maa ngi fi may liggéeyee mais boo génnee fii ba balaa ngay egg sa kër foo jaax de curk wala gis curk bu la ne nekke daar nekke daar sa veut dire ñaata la ñaata ngay jaayee wala cash para wala ki delim ma maanaam nañ dem genre affaire yooyu noonu di la jox di la wax ay harcèl di la harceler sexuellement mel ni yow da ngay jaay sa bopp xàmmeewuñ jaay boppam xàmmeewuñ koy liggéey wuti nañ ko on en est nag on en est ñoo ngi woote ngeen dimbali ñu euh, ba ñoo ngi bëgg suñu kàddu yi ba ñu dugg toog ci nopp ku tëx ñu ngi ñaan yàlla mu egg si war a egg ñu ut ci ay solution parce que sonn nañ seeni rakk lañ Mhm. seen i yaay lañ seen i doom lañ seen jarbaat lañ sonn nañ franchement on en est marre il faut que ça cesse il faut que ça arrête. j'imagine j'imagine parce que Turquie am na consul euh, Sénégal bu nekk foofu wala ambassade bu Sénégal mu ngi foofu bi nga xamante ni mbir mi am na yenn anat yi Sénégalais yi nga xamante ni yéen a nekk Turquie yan jéego ngeen def ak présentement la situation bi naka la tëddee foofu est-ce que xale bi. am na su am na soutien ci ambassade bi wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, autorité yi nga xamante ne ñooy représenté Sénégal foofu euh, fi mu toll nii bëgg naa xam un peu situation bi foofu. de passage ñu ci tama de passage ñu ci nuyuwaale suñu président le président de tous les sénégalais yu nekk fii alxaji Pape Matar Sow ñu koy nuyu bu baax a baax taxawaayam rafet na 72 heures yi ngi ni nelawul jaget bi mu soloon barkaati démb ci vendredi ci guddi ba léegi moom la sol si meekuwul deful dara lekk naanul démb këram la ñu dajaloo noonu doon def benn live en direct en vingt heures donc euh, la présidente aussi Fatou Fall mooy kii jiite jigéen ñi présidente des femmes de la de la la de la fédération turque bi nekk fii kooku tamit mu nekk jàmbaar jigéen ju mën góor am lu ko metti takk ndiggam moom itamit vendredi ba léegi mi ngi ñun ci xeex bi mhm. ñun nous sommes que des partisans nekk ay ay ay ay nit ñi nga xamante ni liggéey moo ñu ñor mhm. donc liggéey moo ñu ñor donc du coup il faut que ñu liggéey liggéey rek ñu ñox tu as compris mhm. looloo tax ñu àndandoo ak ñoom ci liggéey bi boobu ba léegi di ci tax ba ba léegi mais boo bëggee dégg dëgg du kenn ki nga xamante ni gis nañ ko à part ñaar ñi ma la tuddal euh, monsieur l'ambassade nag Euh, mënuma wax dara ci moom parce que gisuma ko dégguma benn affaire bu mu def ci là-dessus euh, li ma xam daal mooy madame Savané di secrétaire général bi ñëw na barki démb euh, démb ci ngoon fexe nañ ba ñu récupérer xale bi actuellement mi ngi ak moom ci hôtel bi parce que moom instant yi xale bi mën nañ ne mi ngi ci loxoy ambassade donc lii rek la ñu mën a wax pour l'instant mais jéego yi ñu ci dox ay jéego daal bu weesoo ñaan ñi mën a tuddal ak ñi nekk seen gannaaw chargé de la du social muy Cheikh Gueye ñoom monsieur ñooñu daal ñoo ci nekkoon ay grand yu baax yi nga xam ne ci fédération bi lañ nekk di liggéey ak président des étudiants bi nga xamante ne moo nekk Istanbul ñooñu ñoo nekk ci mbir mi di ci dox di ci wax boobu ba léegi dégguma ci benn autorité bu ci wax nii ku ci def dara ambassade biñ ko woowee mënuñu ko woon jot ba benn instant bi lañ ko jot mu yónnee ndaw muy mat Sabané c'était hier mais ñun li ñu metti lekk ñu naan ñu tëdduñu ci suñuy lal c'était depuis avant-hier li ñuy li ñuy jooy mënuñu koo sax wax dañu yéex a dañu yéex a dañu yéex a dañu yéex a réagir dañu yéex réagir donc loolu moom moo leen metti mais comme information donc xale bi xale bi xale bi fi mu toll nii donc nekkatul police génn nañu ko mu ngi ak ambassade bi. mi ngi ak mi ngi ambassade parce que mi ngi hôtel ak madame Savane. d'accord mais ñaar ñaar ñi ko violé ñaar ñi ko violé ñoom ba euh, léegi ñoo ngi ñu ngi leen teg loxo. oui ma ne ñaar ñu ko violé ñoom ba léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi foofu ñu teg loxo. ñooñu ñoo prison ñu tëye pour l'instant on est en Turquie ils sont des Turcs. on est en Turquie ils sont des Turcs pour l'instant ñoo ngi ñu gaar xamuñu nag ndax suba dinañ leen bàyyi gannaaw suba dinañ leen bàyyi mais. fii la ñuy xamee suñu njëriñu état ak ñun lan lañ qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut au niveau de de qu'est-ce qu'on veut au niveau de l'état ñun loolu dinañu leer ci cas bi. parce que xale bi il faut ñu taxawu ko bu weesoo xale bii nii buñ ko bàyyee mu jàll nous tous nous sommes nous sommes dans le pétrin parce que dañ koy làmbatuwaat di ko continuer di ko def. d'accord on ne veut pas que mu nulee donc yéen naqar boo leen di dund foofu la yéen sénégalais yi nekk Turquie ci ay harcèlement sexuel ak euh, li nga xamante ni mooy seen bërëbu liggéeyukaay ak patron yi nga xamante ne ay turc la et que affaire bi généralement boo leen demee ci yoon du mujj daa du mujj fenn donc loolu moom leen metti ngeen bëgg ci ay saafara. saa soo leen bëgg di ci woote ñëpp di leen ci woo góor bi di ci leen yaakaar bu baax oo ñëpp nañ dimbali ku ñu mën a dimbali nañu dim xeeba ñu dara dimbali leen ñu a ñu bàyyi ci dëkk bi mais dara d'accord jom rek ñu bàyyi ci dëkk bi d' donc dégg nañu la je pense que les aussi dañ dégg li nga xamante ne moom mooy message bi ngeen lancé gërëm nañu la bu baax a baax ana rek lan ngay tàggatoo sa kàddu bu mujj santé sama présidente de la fédération ci ndigalam laay waxee di di sant di gërëm tamit Sara mbay suñu assistante de présidentielle euh, di sant tamit suñu président de tous les Sénégalais franchement ak ñi mu àndal ci liggéey bi yëpp ñoom ñi ñu jox kàddu wóoluñu ba euh, doole bi nañu demal wala waxal bu la woowee donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye yéen tamit mention spéciale à vous waa Walf parce que tamit def lépp franchement euh, yéen a ñuy ko ay suñu ay nag ba ma fomp ci rongo na jëla jëmale leen kanam. merci beaucoup kontaan bi tamit ñi ngi ñaan maam Diarra yal na yàlla euh, yal na yàlla seddal ay ay moom franchement noonu lañ ko mën a waxee parce que elle a été elle a été déberge violée violemment et puis bon dañ koy ñaanal rek yàlla may ko ci wér waaye tamit may xel mu dellu parce que elle est trop traumatisée franchement yal na ko yàlla teg loxo te sàmm.